même su fekkee ne ci CRD bi la am waru waru ko waru ko jël waaw mais mu dem réunir seen seen gars parce que boobu ba léegi affaire bi ñu koy romanaat xam naa ne il fallait non seulement ñu def ko genre genre procédure accélérée ñu ne pare balaa CRD dem ñu ne nañ suspendre marché bi mais loolu le nouveau directeur bu ñëwee pleinement il peut remettre en cause cette décision la mm-hmm. oui parce que décision boobu man day je la trouve non seulement infondée mais injuste encore et illégale parce que ARCOP seen yoon newu ci. seen yoon newu ci et je je te dis une chose gis nga foofu noonu ña fa nekk yëpp c'est des gens du système maa la wax loolu man de bu fekkee ne ñoom Ousmane Sonko ak Diomaye dañoo bëgg liggéey ña fa nekk foofu yëpp c'est-à-dire il faut les dégager parce que tous ces gens qui sont là-bas li ma nag lu leer la yow man du ma wax c'est des gens du système hmm? maa la wax loolu a commencer par Sayane mi ñu fa dàq parce que nekk homme du système moo tax depuis 2017 ñu waroon ko faa jëlee mu toog fi tey ba illégalement Sayer a fait sept ans de plus yoo xamante ni alors que alors que waru ko foon def mandaam jeexoon na depuis 2018 muy mu ñu ñu ñu prolongé ko ñu prolongé ko alors que Macky bi muy jël décret boobu amul woon sax sañ-sañ def ko parce que c'est pas le président qui est habilité à à à comment dire à à prolonger le son mandat. Mm-hmm. donc Azer coow amu fa dara amu fa. tous ces gens là ay kii yi nii xam nga Jean Michel moom bañ ko waxee lu ma wax c'est clair mu ne man sama yoon nawul ci app de app Power Sénégal sama yoon nawul ci ñoom man xam nga ku ma am problème mooy espagnol yi espagnol yi gis naa ne marché bi lii la woon gis naa ci ay surfacturation ma ne leen lii ak lii ak lii au nom de la transparence te wax na leen de mu leen marché bi même su leen ko jox cinquante pour cent yi il faut faire de sorte que cinquante pour cent yi du marché que ça par les entreprises sénégalaises mais jibi transparence patriotisme bëgg sa réew foofu la mën a yem donc Jean Michel kenn amul lu ñu ko wax cest coow li moom ñoom nañ coow seen coow bopp mais Jean Michel moom lañ ko ci génne parce que yoonam nekku ci moom la mu waroon def en tant que directeur il l'a fait te gis nga décision boobu mu jël ar ko bak ñëpp ci yem kenn mënu ko ko teree jël ces gens là waaw waaye rempe il se fatigue rek parce que problème bi xam nga fu mu waroon mujjee ah. tribunal la war mujjee les les deux les les à deux heures là bu Sénégal ak bu bu Espagne ñoom su ñu amee problème dans les clauses du ARCOP moo ko war a régler cest à il devait aller au tribunal ñoom ñu regle ko seen bopp parce que yoonam newu ci moom su xam fu mu problème doon amee. Hmm. tey Azer su amoon problème ak espagnol yi foofu la mën a intervenir en tant que organe de régulation. mais koo xamante ni yow marché sa yoon newul ci marché. ñee ñii lañ doon sous-traité yow ñuy sous-traité ñu jël problème bi def ko maintenant euh, comme un problème de de de laser non c'est pas un problème de laser c'est un problème entre les espagnols et les sénégalais comme que ñoom seen problème la Jean Michel yoonam newu ci Jean Michel la mu waroon def def na ko nee leen marché bi surfacturation boobu mu ci génne moo ci moo moo moo leen métti une surfacturation de quinze milliards loolu du loolu dégg nga presse bi di ci wax. alors que ça a été facturé à 15 milliards Jean-Michel wax ko ba pare man yor-yor bind naa ko nee naa rien que sur les poteaux rek il y a eu une facturation surfacturation de 4 milliards presque 5 milliards waaw ci poteaux yi rek waaw. léegi nag loolu yow ki ñëw wax la ne man am na gis naa ci surfacturation ne léegi surfacturation boobu léegi nañ ko réinvestir dans l'électrification des villages waaye kooku buñ ko tàccul nañ ko bàyyi léegi non seulement yow tàcc woo ko nga ne léegi sax xaaral jëm ko taxal. waaye ña ñu war a taxal kay taxaluñ leen ña surfacturé ba 15 15 milliards dama ne il ne faut pas que ñu détourner gars yi gis nga 15 milliards yooyu ña c'est-à-dire ña def surfacturation ñooñu la ñu war a topp. Mm-hmm. léegi nag Sénégal xam nga mooy lan. dañu naan fii yow yow dañ laa war a arrosé nga ne non yow yaay dem di arrosé nit ñi yow yuuxootuñ la ngay dem ne ndax di nga ngay nga yuuxu ki la waroon a yuuxu tous ces gens là qui s'agitent. nga Sénégal mooy demee noonu na jibi mm-hmm. problème boo fa gis nga gis ay nit di génn di wax di wax di wax di wax ñu ci bëri xool dañ leen a fay ñuy wax fii am na ñoo xam ne ils ne vivent que de ça c'est des mercenaires chaque fois boo leen génnee gisee ñuy def ay live ak ay kii di wax ñoom ñëpp xaalis lañ leen jox pour ñuy wax. parce que ci ñoo ñu ngay wax noonu. non am na boo xamante ne nii tey jii yenn ci presse bi moom lañu xëyee ñu ne. le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dafa yoreel xaalis waa King Fat boobu baal ma Serigne Sall mu nuyu baax a baax ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy euh, les marchands ambulants ñi nekk ci secteur informel bi parce que ay jàmbaar lañu ah nañ leen jàppale nañ leen jàppale te ci ci émission bi la ñu bokk jombul am na ñoo xam ñu ngi seetaan donc bu ngeen déggee ñiy romb ndaxte ci plein air la ñu nekk di di di tourner donc euh, donc ñoom ngeen xam ne ñu am jom lañu maa ngi leen di massaw di leen jox seen waaye di leen ñaanal yàlla itam yàlla suturaal leen Serigne Saliou ñi ñuy seetaan itam. su après di nga ma leen nuyul mais en attendant euh, ñooñu dañu génn ne dafa am dette boo xamante ni le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ko am ci King Fahd loolu dëgg la ak nu mu demee lu ah mais déjà seen responsable xam nga nan mboo il est sorti il a il a demandé jax na. waaw jàng jàng yi tas na. ñañ wax ne yéen wax ne dañu la yorelu waaw xam nga dañ moom dañu la yorel xam moom moom président bi nitam sax waxul. waa ña nekk ci hôtel ba ñoom ñoo ne ñun président yorul ñun dara. nee na cent franc kay yoralu ko ba parce que ma jàmbal ci boppam moo ko wax. naan ay cinquante huit factures lay xam aussi xam jibi man aussi man jàpp naa ne man Sénégal bi souvent dañuy manqué risque nii xam lu tax parce que franchement quand j'entends très souvent les gens disent ma jàmbal wax na Cheikh Yérim wax na mais franchement man ça ça me pose problème comment les gens ils peuvent s'attarder sur les paroles de ma jàmbal le paroles de Cheikh Yérim Seck chaque fois mais c'est-à-dire j'ai l'impression que ñoo fu mel ni ñoom xamuñu nit ñoo ñan lañ ñoo xam ne lu ñu wax tey bu subaa nga var leen mu mu nekk safaan ba et les gens veulent cest à man yàlla xam ne boo gisee man dans mes man il n'est même pas de mes habitudes ma toog sax di tudd ay ñoom ma jamono yooyu parce que xam nga parce que franchement seeni wax gisuma ci lépp lu ci am importance gis nga ñii fii di toog yi wax yëpp ñoom bés bu ñu egsee ci seeni dossier nañ préparé nañ wax parce que aussi coow li coow li da ngay des fois nga gis sax kuy wax mais mel ni genre ay pare-feu lay lay lay lay lay lay taal tout ça tout simplement peut-être pour brouiller les pistes là ba nit ñi peut-être duñ ko bàyyi xel wala duñu egsi mais xam nga taxaw naan président bi moo yoreel je ne sais pas King Fat King Fat man defoon naa ci un dossier complet hmm. King Fat depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui bu ñu xoolee la ñu cumulé en termes de dette je crois que loolu mooy problème mais un président boo xamee ni am na fa suite présidentielle qui a fait là-bas quelques jours ne serait-ce que pour la sécurité du président. Mm-hmm. nga bëgg toog fii di divertir nit ñi naan ay kii yooyu. et pourtant Jibi. Mm-hmm. y' a combien de journalistes qui ont élu domicile là-bas. Mm-hmm. King Fat. ñaata journaliste waaw. ñaata jour ñaata journaliste lañ fa jox ay foofu nekk pendant deux mois ñu tëdd fa trois mois. King Fat billaay wallaay. xanaa jamono ji ñuy waaj élection <laughs> wala bu dëkk bi tàkk. ma de tout temps les journalistes yu ñuy dama ne des journalistes laa la wax yoo xamante ne nii en off ma jox la tur yi hmm? King Fat ñoo xam ne nii chaque jour nga dégg leen ñuy mbaw fii di mbaw di wax guddeeg bëccëg alors ko ñoom def nañ séjour King Fat pendant trois mois logé nourri blanchi aux frais de la princesse. allahu akbar dafa la ñuy wax. fii ñu fiy wax fii yëpp ñoom seen wàllu bopp lañ lañ fa lañ am fi King Fat ñoom nañ xam ne ñooñu ëpp ëpp ñu fay ni nit ah. man amul lu ñu xamul ki nga fa taxaw ma ko fa journaliste bu fa def séjour xam naa ko journaliste bu fa def séjour j'ai dit xam naa ko ak ku dul xam naa ko donc vraiment nañu may nit ñi quoi dañ may nit ñi je crois que le Sénégal fi ñu toll nii am na yeneen problème jibi yu gën a am importance vraiment ay waxuma jambal waxuma Cheikh Yérim Seck quoi parce que man franchement jàpp naa ne ñooñu chaque fois bu ñuy wax c'est pour peut-être divertir les gens ou bien jéem a braquer nit ñi sur ce qui est inessentiel alors que li essentiel mooy la réforme économique de ce pays pour man je crois que loolu moo gën a am solo quoi justement loolu président Diomaye Faye le a Euh, agenda Sénégal 2050 en quelque sorte euh, nu ñu ko mën a comprendre lan mooy solo si euh, programme bi ah, ak itam mbir yi nan la nar a demee ci wàllu plan de développement oui mais c'est la loolu kay la matérialisation du projet mmh. c'est la matérialisation du projet ñu doon wax naan projet amul <laughs> mais projet baa ngi nii c'est la matérialisation du projet parce que li nga xamante ne jibi da nga ko bëgg a def ci réew xam nga da koy def dans de grandes lignes. Mm-hmm. loolu la wax sa projet politique. Mm-hmm. bu fekkee ne nga ne su ma jotee réew mi ci axe yi yéeg yéeg yi léegi nag soo ñëwee ba toog léegi nag ba am yenn chiffres yi. Mm-hmm. ba am ba gëstu ba xam yenn yi nekk ci biir état su boobaa nag compte de li nga jot a gis li nga jot a xam. ci ngay mën a léegi ngeen def nag réellement sa yow sa sa sa sa projet politique sa programme politique moom lañ tuddee ñoom seen référentiel boobu loolu moo tax dès le départ ñu naan ana seen projet projet mais Macky Sall bi muy ñëw du yoon yokkute li ñu woon. il a mis deux ans pour mettre en place un PSE. PSE boo xamee ni saa a été fait par un cabinet américain qui n'a rien de sénégalais. Mmh. absolument rien qui n'a tenu compte donc c'est-à-dire de rien du Sénégal. on a payé des milliards à des américains dans un un, un cabinet américain ñoom ñu def ñu bindal ñu programme balancé ñu ko. et ils ont fait de même avec Guinée je ne sais pas avec bon Gabon yeneen pays yi nga xamante ne ñoom gëmuñu seen bopp deux ans pour le faire ñii ils sont venus il y a de cela six mois ils vont mettre en place ñoom tawuñu deux ans de pour ne dañuy dañuy dox seen projet déedéet voilà le 14 bi ils vont dire que ñoom Sénégal fii lañ ko fekk fii lañ ko yóbbu dans vingt cinq ans parce que vingt cinq ans jibi c'est une génération mm les gens verront en une génération que ñii fi nekk nii ils vont transformer ce man la 14 jotagul ma dégg ci ñaari wax benn bi mooy manque de réalisme te moo ne ñëwagul beneen bi ma dégg ci tam ñu ne un calendrier trop trop trop ambitieux bon ah xam naa dañuy référé ci projet bi pour pouvoir